وقلبك على سادات bu jafee rekk xel yëpp dem ci moom loolu yàlla moo ko bay bu jafee la tontoo ni du jafe ba mu jafee koso la tànn tànnal koy jafe-jafe mu dékku ko muñ ko xuus ko féete wóor coono ba tax tey jii mu taaj nu ndabul añ lu rëy lii gis naa ko gëm sa baay ba tey ak bëgg ko waaye jotoo sañ ko sa astuloo gannaaw fàggutee fu way jur ya ci lu yàgg lool diggante kokki ndaam ak ngembe njàmbaar lu rëy la mu tibbee ca way juram wa maamam jakay turandoom Cerno Birahim su fekkonte ni way jur dana damoo doom kon ñu wax ni sëñ Modaw Balla dana damoo sëriñ Koso Astulo dëggoog sàmm ak rëy jëf la donne ca way juram wa kay ndaayaan jëfam ju rëy ci war naa mën a nekk lii da ko donn lii ñu fàggul ko ko li ci des ab liggéeyama boole ci nanguk ndigalam akuk taalibeem ca la rawe sëriñ Koso astuloo Lo mi ngi gane àdduna ci atum 1935 ci diggante ñaari wayjur yu tedd cheikh Mouhamad Hawa Balla moom maam Thierno Ibra Faati ak soxna astuloo sëriñ Koso Mbacké Astou mu ngi feeñ ci atum 1935 sunu boroom tànnal ko ay wayjur ndax cheikh Mouhamad Hawa Balla. muy way juramu góor waaye soxna astuloo mooy way juróom wu jigéen moo waral koso astuloo te boo bëggee xam njàmbaaru sëriñ koso xoola ci sëriñ Tuubaa ak Cerno Birahim ku ñu séq sëriñ Tuubaa julli ba nuppi génn ci jàkka ji ni neen jëli doomi ma jaxate xari te jox mu daaw sëñ sëriñ ma jaxate xëri jang loo mi nga xamante ni bii moo nekkoon Karathil lu jiitu mu fay jóge di dem Ndam Ngot mooy way juru soxna Assulo doomi sëriñ Muudu Awa Balla mi jëkk a doon xalifa ci maam Ceerno Ibra Faati doonoon nit ku ñu xam ci wàllu defar ci wàllu àddina bokkoon na ci ñi xamoon waru garam la na ci moom nag Cerno Birahim moo ko ca def maamam kon sunu borom def koo tànnal ay wayjur góor la woon jàmbaar la hmm. waajuram moom itam noonu la meloon ma gis nga bëgg lu baax ak bokk lu bokk fu baax dana dimbalee nit ci mbaax maamam jooju di ma ma jaxate xëri jàng itam bi nga xamante ni en 1898 le da la l'AOF bi ñu doon wooyee Chaudié le 1er janvier 1898 tere woon na ni kenn dootul natt asaka Sénégal Serigne ma jaxate xëri jàng dafa continuer woon moom di natt asaka ak ak njabootam ndaam ngottu lu jóge ci sëriñ Touba dafay jaar ci maam Thierno ba mu jaaree ci maam Thierno yi dafa daal ñëw ci sëñ Modou Awa Balla te sëñ Modou Awa Balla lu mu yoroon rek sëñ Koso am na ci droit ndax danañ di nett li ne daana wax na mooy Koso bàkkul yow sama mbër maamam moo jël mbëtam jalambaan samp ci njëm ji di ataaya ni nañ ma wooyeli Koso ñu ni ko cas tungoom ko indi ko cëppil ko ci kanam maam Cerno Birahim mu jox ko ñaari dërëm ca booba jamono ni ko ko sa bakkul yaay sa ca ba mu nekkee ndaw la ka tànnoon ni ko yaay sama mbër bàkkul sëriñ koso gimmi nag ni dan sëñ mu daw ball ndax fierté la woon ci moom ba mu feeñee mu tuddee ko waajuram borom darul mooti sëriñ koso sunu borom def ko mu doonoon ku doon dimbali doomu aadama yi doonoon itam ku fonkoon Serigne Modou Awa Balla ba yemaliwu ko woon ak dara. gis naa ku gëm sa baay ba tey ak bëgg ko waaye jotoo sañ ko sa astuloo. nee na man duma doomam. nee damaa jaay sama njureel. jënd ko ko taalibe sama digg moom. waaye nag. wante nag. ndeke juum ndeke may na ma day nee na may na ma day des na diir bu tuut yéen ñëpp di ko xam te suñ taxawee bar sàq di xam lii mu leen wax sëriñ Koso cofeelam ci sëriñ Mouhamed Awa Balla lu rëy la lu foor la lu rogalaat la sax ba ci njabootam gii mu fonkoon leen lool def leen ay sëriñam daana wax naan bu ma fi fekkutoon benn doomu sëriñ Mouhamadou Awa Balla bu góor dinaa jël jigéen ñi def leen samay sëriñ bu ma leen gisul danaa sàkku ngëram ci lépp lu mu fi bàyyi donte ab bant bu mu fi sampoon la jenn jigéen rekk ne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 jëm si ci njabootu sëñ mu daaw balla su jógee ci kanam na jëkk daje ak man su jógee ci ginnaaw na jëkk a ak man bu jógee ci kaw na daje man bu daje jógee ci ndajoor it na daje man bu jógee ci càmmoñ na daje ak man ak bëgg la ci amoon yemaliwu ko woon ak dara moom daf daan wax ni waxuma sëñ moo daaw balla waaye sëriñ Moustapha Sëtu Jaxate ak njabootu suñ Modou Awa Balla gi tey bu fekkoon asamaan si dafa màbb jëm si ci ñoom damay jóg kar ko ci man lay dal waaye du egg si ci ñoom. gannaaw bi mu jaaree fi mu waree jaar lépp fépp fu ñuy jaarale doomu soxna ci jàng yar ak tarbiya ca daaru koso. 48 laa dem koso 49 50 mu ñëw koso fekk ma fa mu nekk fa di jàng alxuraan ba jóge fii mu soog a dem ba Daxaar fekk sëñ ba Basanta Ñang jàng foofu ba jóge fa digraat ko sa fekk ma fa di jàng si xam-xam musunoo tàggoo benn yoon maag moom ak taalibeem ñëpp nangaloon nañ ko buñ nee ku bëggoon ay bokkam lañ ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu itam ay jëf la yum jëf ba jóge fi buñ nee bëggoon Sëriñ Tuubaa bëggam gépp mi ngi ko tegoon ci liggéeyal murid yi liggéeyal taalibe bëggam yooyu yëpp nag da koo dajale def ko ci bëggu baayam muy sëñ Modou Awa Balla daf ko bëggoon bëgg goo xam ne gii bëggam yëpp la jël dajale ko jaarale ko ci baayam. ah suñ ko soo ku yàggam positif la lu mu am positif gannaaw yàlla positif ko may. ak bëgg sëñ mu Awa Balla ku ko xam-xam nga ko bëgg sëñ Modou Awa Balla amu ci bëggoon na ko bëgg goo xam ne waxtaan ci sëñ Modou Awa Balla ak njabootu njabootu sëñ Mor Awa Balla terango ñoom génnut yombul woon. yow ñaari bari bu tuddee sëñ Mor Awa sa daanu. sëñ Mor Awa Balla xam ne bëgguma mu dem. bi bi jant bi soy may indi juróom-ñaari docteur. mu xool mu yàgg. nee na xool ma ba mu yàgg. nee ma daal di jooy. nee na moom Serigne Mouda mu xool ma ba mu yàgg nee mu ñeewanti ma cey ko so astuloo ka ñàkk waayam day xaritam dib sëriñam di baayam baayam da koo gërëm ba xëy yebal ko mu toog fa sarsaara lu jot mu def ko ina lazina kon ila sarsaara yéen gaa yi ànd leen nu dem sarsaara am di wa shukri liman kulli bi لو ردا la ko baayam yabal dëkkam boobi tuddoon altu wasila booba sëriñ Koso Astou Lo mi ngi toll ci fukki at ak juróom-ñeent soxna muumi moom sëriñ tuuba moo soppi turu dëkk wa tuddee ko sarsaara sarsaara mi ngi tollu ci fukki kilomètre ak benn diggam ak daarul moxti ci yoonu Kébémer wa mu doon sanc bu metti bu tar àll bu lëndëm këriis du yoon du ndox sëriñ koso sax fa lool muñ fa lool ba lépp fekk ko fa ab teen bu sori la fa fekk mujj na lépp lu réewum taax di am fekk na ko fa sarsaara sëriñ Modou Awa Balla moo fa nekkoon ba mu itam nekkoon faak waa këram ca gën ci gën a ràññee di Mbàkke moom sëriñ Touba. ba mu fay dem muy fii tudd sarsaara tey ngeer fàkk lañu ko doon wooye sëñ Modou Awa Balla sañc ko tudd ko wa tuddee ko wasilatu rubox xam ngeen ni wi jëmoon Louga foofu yi la jaaroon apprenti yi daan lang ci oto yi bàyyi Balla Gaye ñoom yi au lieu ñuy wax altub wasilatu ruboox ñoom dañ daan wax altub wasila altub wasila ba mu siiw bi nga xamante ni bii soxna Moominatu bintul Xadim sëriñ bi yóbbu na ko fa nga xamante ni néeg yam fa def yamu nekkoon Cheikh Samb mii nekkoon ci barabu Cheikh Mamadou Awa Balla moo takk néeg ya am na garabu soon gu fa nekkoon goog soxna moom yi def koo lakkoon ñu wër ko mu tudde ko sarsaara wax ni ku wër garab gi am nga yoolu ña fekki woon sëriñ bi sarsaara ba taxoon sëriñ bi di wax ni inna lasina ila sarsaara ila sarsaara إلى ثرثار قد خسدوا سيارتي فارق دارني أو زارا kon soxna moom bi moo tudde barab bële euh, Sarsara. sëñ Koso daal di taxawaay taxawaayub sëñ Modou Awa Balla ndax sëñ mu Awa Balla ne ko mm, Koso da nga maa bëgg nga gàttandul ma taalibe yi nga xam ne dañoo dëkk Njëgéej ku ci man bu la gis na ma nga gàttandul ma taalibe yi dëkk Njëgéej ak ba ku mënta si ci man bu ñëwee ci yow rek gis na ma loolu mooy sababu sëñ mu daaw bal indi fi sëriñ Kosso Astou Lo sëñ bi nangu la ma waxoon ne su dee àndee ndigal danaa ko jëfe jëfe na ko ba mat sëkk wasilatu rubu la moodu gorlu far soppi turwa gile góor a farlu tuddee ko sarsaara yebal fa doom ja muy ko Astou astuloo ki lee di waaja tabax na kër ga ba mu daj gasteen ba yal na ko maam ja fay ci barke baay ba looloo tax nag sëñ Mor Awa Balla farale ko sarsaara ga nga xam ni moom la ñu duppee sarsaara ga ca gànnaar te ku mas a jéggi jukk fekki sëñ Tuubaa sarsaara boo demee sa aajo fajunu waaye ku sa bët ma sa xong nga ñëw sarsaara ba ñëwee sëñ ko sa weexal na ko tàll diirub lim fi nekk lépp luy waru garub dëkk ak luy bëgg-bëggub dëkk sëñ ko sa asuloo def def na ko ndax booba bu nu bayee gerte ba mu ñor dañ koy jaay libanais yi naar yi nekk Darou Mousty waaye sëñ so daal di fexe loolu mu dañ danoo fekkoon ci jafe-jafe mu mat sëkk bala ngaa naan dem Darou Mousty te ñaari mbuus ngay jël sëb ko ci ak warax xam nga loolu jafe-jafe la bu wala nga dem baar ga ñodi ci goj bi loolu jafe-jafe la waaye bi mu ñëwee daa yombal lépp. sëñ Moutalla ñëw na fa ay yoon yoon ganesi ko sëñ Abdou Khadir it ñëw na fa sëñ Abdou Lahat it ñëw na fa. ku ci ne ñëw nga foofu ci këram dul benn du benn sëñ Mourtala moom dafa defaat mu jot mu dikkal ko waaw wutal na ko fa makkaan moo xam ne mii bu bu bu demee dañ koy tëj ba mu dikkaat ñu sokkooti ji sëñ Blaat noonu alla jili mbay it noonu lu mës jafe bu ci àddoo mu jàppandi noonu la saxee ca sarsaara di liggéeyal yàlla ak di dagg taalibe yi ti leen soob ci yoonu yàlla te sax ci ndigalay lu way juram wa mësula fàtte benn yoon la ko way juram wa waxoon li ma waxoon ni dafa joxoon ab noppam sëñ ma daw balla tabaski 1982 sëñ ko sot dafa ñëw tabaski si booba sëñ ma daw balla mi ngi ci tawat ji ko yóbbu kere bi nga xamante ni sëñ ko sa ñëw na julli ba tabaski yi jàll muy dellu ndakaaru ba muy tàggu way juram sëñ moo daw bal daf ko ni woon koso boo demee loo man ci dimbali doomu aadama na ko def fekkoon na ma doomu aadama waaye nag léegi loolu dafa def ci coobare mooy léegi ndigal la loo xamante ni dafa bàyyi ci waay juróom si amama taxaw bal la mu ni ko koso boo demee loo man ci dimbali euh, jaami yàlla yi taalibe yi na ko def ni ko ndax man wii day di sa waajur du ma tëdd ba guddi ma xalaat lenn loo xamante ni waroon naa koo def ci sama dund te defuma ko lépp lu ma waroon def sama dund man man moo daw balla rek def naa ko kon soo demee ndakaaru nangay dimbali doomu aadama yi euh, ab jullit la woon xaqan ab murit la woon saadix ku bëggoon ay bokkam ku bëggoon diine ji ku bëggoon rasulullahi sallallahu alayhi wa ku bëggoon Serigne Touba ku bëggoon Cheikh Abdou Fati ku bëggoon Cheikh Maodo Awa Balla loolu itam buñ ko waxee lu luñ ci wax rek mënees na caa teg baaraam. ndimbal lim daan dimbale nit ñi it ci njabootam la ko njëkkee man mii doomam la ku ma bëgg la woon di sama xarit daf daan wéet lam doon lam doon lam doon ñàkk ñàkk jot léeg-léeg mu woo ma wax déy ma dara waxtaan ak man.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 moom rek la yaakaar lu muy liggéeyal yoon it moom la ko daan liggéeyal liggéeyal na ko ci jëmmi boppam liggéeyal na ko ci dëkk bi mu ko joxoon liggéeyal na ko it ci ay bokkam liggéeyal na ko it ci nit ñi. ñu ko so asaloo ay jëfam mag ñi fi jaaroon ak fi mu ko jaarale gis nañ ci gisin yoo xamee ni e, xam nañu boroom ndimbal la woon boroom xar baax la woon ku bëggoon dimbalee la. ku fonkoon euh, doomu aadama la ku lislaam ñoroon la waaye nag ku sëriñ Tuuba ñoroon kuy liggéeyal borom daaru muxti la waaye ku bëggoon kilife la ku nangu woon kilifteef la ñu dem daaru mu si sëñ mu daabal jox ñu diggalal màggaleen laylatul xadar boole nag sëñ koso fekk na boole na lu ko jëkk ndax ba daayira bu juddoo ci kanamam daa woo sëñ Kosso ko daayira bii kat na nga nekk seen jëwriñ boo dul seen sëriñ nga nekk seen jëwriñ sëñ Kosso génn ci poosam def ci keesu daayira bi. daf ñu daan wax ne nit ki daal fu muy dem rek na bàyyi xel boppam ne moom la boppam la fay fekk kon dégg moom na rafet na rafetal ci wax ak ci jëf. Hmm. wax ak ki jëf sëriñ li nu xam ci moom xam nañ ne julli dëgg la woon ku fonkoon lislaam la li leen di soññ itam na ngeen góorgóorlu ci bu baax ci jaamu yàlla na ngeen di wéetal yàlla na ngeen doyloo yàlla na ngeen wéeru ci yàlla na ngeen jàpp sëñ Tuubaa mi amul lu may moom jullit kat jaamu yàlla lañ ko digal jullit dafa am ay sart am ay tënku-tënku yoo xam ne dañ ko koo tënk aaya ko ko te warut a jéem ci dàll lañ ko aaya dara moo tax digal naa leen ngeen di julli digal naa leen ngeen di dimbalante ngir yàlla dimbaleen digal naa leen ab jullit du fen ab jullit du sàcc ab jullit du naan sàngara ab jullit du tox yàmba ab jullit du bari po ab jullit du wax du moy yàlla ci diggante góor ak jigéen ab jullit du wax du jëw ab jullit dafay nangoo liggéey ab jullit day julli waxtu yu juróom day natt muurum koor day def asaka day aji màkka e, juróomi ponk yooyu daañu koy def te jullit nag li nga xam ne yàlla digal na ko ko obligation la ci moom kon nag maa ngi leen di fàttali ngeen góorgóorlu di jaamu yàlla de leen julli ji ci jàkka ya dee leen ànd akum njàpp te ngeen di teelee dem ca jàkka ya di fa teew jàkka yi nag amul jàkkay murit amul jàkkay xaadir amul jàkkay tiijaan jàkk yëpp jàkk yàlla la fu fi waay dëkk jàkka jafa new nanga fexe ba mu miin la te itam kat nit ki nga xam ne dafa juddu ñu raxas ko ba mu seet muur ko sér tudd ko yor ko mu màgg doog tuuti dund tuuti ndax dund tuuti mooy lu dund gi bari bari bu doon téeméeri tuuti la ci yàlla ñu ñu raxas la ba nga set muur la muur lam ab sér dugal la ci biirum pax yow képp ak sa jëf na nga fexe waaye rikk ba boo demee foofa bul fa defal lu lay te li lay def li lay sonal mooy bàyyi ndigal yàlla. buñ ne ku bëggoon lislaam la foo masaan fekk mi ngi yor alxuraan wala mu yor xasida di jàng wala mu yor kurusam di def wala istixfaar kon kuñ ne buñ ku bëggoon lislaam la dañ koy teg ci ay jëfam yu mu daan jëf ñu di ko fekkee. ajjuma di ñaari fan ci weeru juillet 1982 ci la sëñ Abdoul Aziz Sy xalif général de Tidiane inauguré juma ji moo mu ànd ak Serigne Kosso Mbacké ñu ubbi ko bi ñu ko ubbee le 2 juillet 1982 sëñ Koso nekk koo xam ni kii fa tabaarakallaahu ku bëgg lislaam la ku bëgg jullit ñi la dafa daan def ne mbooloo mu àndal mu nekk da yaakaar ne moo leen war a lëggéeyal moo leen war a sonnal ku ku ma àndal rek noonu la loolu la yaakaar moom hmm. noonu la ko yàlla bindee itte rek itte lool bari itte lool bari itte lool te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alxalqu iyaalullah xayrukum anfaahum li iyaalihi nee na bindee fi yàlla yi njabootu yàlla lañu ki gën a baax mooy ki nga xam ni moo gën a am njariñ ci bindeef yi ku am njariñ ci bindeef yi rek ci ñi gën nga bokk te moom ku amoon njariñ ci bindeef yi la di leen leel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 way way sonn way sonn yi mu leen di dimbale di leen defar ngir yàlla ak yonte ba këram boo masaan ñëw doo xam ne tijaan bi ak murit bi ak xaadir bi ak laay ñëpp nga fi fekk noonu la mel nag dafa amoon njariñ ci nit ñi dafa amoon njariñ lool ci nit ñi marché yëpp dañ daan def njooxee léegi xam naa loolu nu koy bëgg a fàtte bu doon moom la marché yu tàkk yëpp ba tey dem nañ ci moom di ko sëñ bi dimbali ñu ñaanal na ci marché yi tàkk na gën dem nañ ca geraw yu bari yëpp ñooñu dem nañ ci moom ni ko geraw yi nangam a nang mu jël kàddoom daal di cay wax tey ñu rus ko nag nguur rus na ko waaye taalib yi rus nañ ko te ku ci nekk njariñ lu rëy looy gis ci moom képp a taxoon nga rus ko. day day def rek te du xool ndax murit nga du xool ndax tijaan nga du xool ndax loo moom daal bu lay jàppale dalay jàppal rek te yàlla tax loolu loolu moo doon habitude suñ ko xew na ci marché yi coow am na. ca étudiants yi coow am na fa barab sàngam ñooñu seen xel dana bokk ci ñi mu jàpp jëmmam ba ñu gaaw daw seeti ko te it nguur déggaloon ko lool nag. ak dimbal doomu aadama ci yàlla rek tax ndax sëñ ko sa kenn ma sa ñëw wax ko sa soxla mu ne dëkk boo jóge walla noo sant walla noo tudd wala kan mooy sa sëriñ da nga ñëw wax ko rek ba jën sax foo jóge foo kii. lii mooy sama soxla sëñ ko dana taxaw ci loola mel ni mbirum boppam ba loolu lijjanti ko ci jàmm ak salaam yow sax du jéem a xam foo jóge te soo fa pare itam du ma koy taxaw di ko waxaat yaa koy wax wante du nit ñi waxuma taalibe yi waaye yittey nit daawu ko tàngamlu fu mu ko masaa yéege taal na otoom du yónnee waaye day demal boppam ngir yitte joojee faju gëm nga sëñ Tuubaa nag amutub ànd na noog moom di jëm Daaru Musti mu ni nan jàdd Tëngéej ci euh, commissaire Mané ba ñu ñëwee fekk commissaire bi su minute ba ñu ko dugal ci weelon wi ba ñu ko futtee ba di ko ñooñ muy dugg mu ni bismillah barke Sëriñ Tuubaa mun ca yem ni e bàyyi leen ko waa ji taxaw mu ne ko solaatal sa yéede commissaire bi ni ko kii li mu def mu ko xaw ma lu mu def ki mu wax laa xam na jaar nii kookoy ko sa astuloo ku gëmul Sëriñ Tuubaa la ci wàllu diine fonkoon na lool yoonu murit wax naa ni ni mu leen daan dimbalee di ko dimbalee njaboot gi loolu kenn réeréwu ko alhamdulillahi alkarim zil minan ala istiqaali bi furodin wa waaye di def boo ma ca boolewul du sotti ndax yàlla du ko nungu maa wax ne it nitu góos ak droite laa yàlla moo ma ko bindee góos bi mooy ku nekk ci àdduna danaa la tàllal loxo di la dimbali ci soxla waaye su ma taalibee soxlaa it nga dimbali leen ci seen i soxla loolu laa am jomi di ko def ndijoor bi nag di droite bi mooy ku ma sant dara nga bañ ma tàllal ndijoor bi wax ko sëñ Touba nga def li ma bëgg walla njëlee la fa rek daaru ma gi itam daaru ma gi nag mën naa lañ fi doon tere sëñ Modou Arobala waxoon ko dana man sama bakkan bi laa ci laa ci gar ndax ku ne xam ne dëkk bi toll na jamono boo xam ne yu bari dañ ko fi tere mais tere gi ci sëñ Modou Abal la commencé woon aw sëñ Abdou Khoudos ñëw ci Baye Cheikh ñëw ba ci sëñ Abbas yàlla na fi yàgg mais loolu sëñ Kosso moo ci njëkk a gàttànk tubayam bisub korite la ko woo fa daaru mu ñëw mu déy ko ñëpp a teew fa daaru ndekete booba yëf yu bon ya yàlla di tere moo di sàngara ak mooy yàlla moom la ko ni na dal di jóg fi daaru mu wax ko baayam abdou koy maxtaaru cheikh abdou dal di koy tasaare booba xibaar ba tas ba ñëpp jot ca booba ba tey xam naa ku fa doon fajoo beer ci daaru muti boo wutuwul faatu nda doo fa gis beer daaru musti cër bi mu am ci wàllu mouridisme li ci ëpp solo lépp boo waxee siñ ko so rek daanaka mën nga wax ne wax nga lépp. te moom lu mu masaa soxla nguur ga mu jamonoonteel danañ ca taxaw loolu seede nañ ci lu bëree bari moo xam nit ku ñuy embauché la moo xam nit ku ñuy bëgg a tëj la mbaa ñu tëj ko bu cay taxaw muy dañ. moo tax bu mësee jafe rek ba journaliste yi làkk ñu ni daañu ko denc suba intervention ku dul sëñ Fallu sëñ ko saastuloo moo la ci man muy def intervention dalay def ca këram oto ba yegg woolu comme ko séqal mu wàcc mu ne nañ ko bàyyi personnalité bi sëñ Koso bokkoon na ci bu ma saa soxla ministre sax du yéeg agenceurs yi day taxaw ci buntu ministère ba ñu woolu ko mu ñëw dugg ci oto bi mu wax ak moom loolu personnalité la am na bés ku ñu téye fii ak benn naaru fâche ci benn affaire ma daal di xëy fii ànd ak délégation ba dem ca ni ko diw day dafa nekk ci jafe-jafe te yaakaar na ma ci te man ku ma yaakaar ci lu mel ne rek ka tax bàkke mu ne ah ma ne ko waaw mu ne man kanaka ñaata ma ne ko am moo benn naar la mu daal di tel jot téléphone am wala benn benn benn procureur mu ñëw fi saasi mu moo xam li nga wax wax bi dama xuma sa bopp xuma ko xuma la daa daa bi mu dee na mooy procureur rek man xuma ko mu toog sëñ bi toog mu ne sëñ bi ne wax ne moo ne ma mu ne waa jënd dina baax mu ne ah, xam naa day di nga yendu man ko ah, man kay mën naa feeb ñetti fan mu ne akkoon ah, baax mu trois heures naa yóot hmm. ko so Mbakke astuloo faat daam ma jigéen guñu ma laa meen yaaxe joxo bàyyi diggéen rab buru gaat maa son ma ngoone yàlla ñëpp la ko tëggal dafa am benn xale bu góor bu tudd bu santoon turbanaa lay fàtte waaye ndóoy la santoon dafa nekkoon chauffeur camion chauffeur sept places chauffeur chauffeur sept places la woon fële ca ca kii ca Kolda dafa dafa defoon foofu accident euh, yàlla def kam kam accidenté woon faatu léegi moom ci diggante bi borom oto ba nangu otoom xam nga kon moom dëkkul Kolda mu ñibbisi ñibbisi da daa daar mu si di di di bàggante Touba ak daar mu si ba ba am place daar mu si di di tax biir biir Touba xam nga léegi moom xelam nekkatul ci ci ci ci affaire boobu ndekete gars yi convoqué nañ ko ba sol te mënuñ jot ci moom léegi ñu defal ko mandat d'arrêt loolu la rek loolu sëñ ko sëñ ko ñu ñu defal ñu def ko mandat léegi ma jël téléphone bi woo sëñ koso jàmbaara ngoog joj lislaam jëm ko senegal yëbu ko ku mu jur yar na la kër sëñ koso ne ma diw de dañ koo bëgg a téye ndax daa def nangam ak nangam te xam naa bu subaa euh, astafurlah moom ci boppam moo fa ñëwal boppam ne ma bu subaa dañ ma téye boo ndax nangam ak nangam moo xew ma ne ko waaw léegi de comme sëñ bi dafa tëdd li gënoon mooy nga toog fanaan fii ci man boo xëyee suba bu soobee yàlla moom kenn du la fekk di la jël mu toog toog ba caa mu ne ma naa dem ci kër gi rek bu ma xëyee suba teel a ñëw bu ma xëyee suba rek soxna Seex yi daan na ma diwlu téye nañ ko ma ne ko ah naa ko de nee naa ko woon fanaanal fii léegi nag li ma ci xam mooy nekk ba sëñ bi ubbi bu ubbee ñu ñu ñu wax ko ba xam bi ñu ubbee ma dem leeral ko ko wax ko bàggal mu ne waa baax na ñu toog ba ca ngoon ma ko mu ne baax na ñu toog ba ca suba sa ma soog faa ma soog ma soog koo waxaat mu ne ma waaw moom day dafa maanaam da ci am ñoo ne dañoo jubut maanaam ndax man danaa dimbali doomu aadama waaye bu ma sañoon tam du ma jàppale koo xam ne kii dafay tooñ. ma ko waaw waaye kii moom amut ku dul yow amut lenn lu lu fu mu mën a jëm fu dul ci yow léegi nag nañ ko dimbale ko rek mu ne ma kon danaa ko dimbale waaye su ma ko dimbalee ba mu noppi itam na ñëw fii waxtaan. daal di nag wax kii ne ko téléphoneel ma commissaire yaay ba am fu fi nekk mu téléphone yëpp kenn nangu ko wax fu mu nekk mu daal ne jox ma ka jox ma saag bi ma jox ko saag mu daal di génne carnet daal di woo procureur. mu ne ko may ma cinq minutes mu may ko mu ne ko mi ngi ci bërëb sàngam mu ne ko nag dama bëgg ñu bàyyi ko mu ne ko mën ngaa yeble daañu ko bàyyi léegi. dafa amoon njariñ ci nit ñi dafa amoon njëriñ lool ci nit ñi. ku ku mënoon taalibeem la ku nangu woon dimbale la ku xamoon fi muy jaar taalibee bi ba dimbali ko la. jumaa ji daan def. boo xamee ne tamxarit jot na day jënd nag indi ko ci jumaa ji ne ndawalu ilimaan yi la ak mbokki taalibe yi nekk ci jumaa ji e, man mii nag dafa ma bëggoon bëggaay goo xam ne gi tabaarakallaahu dama daan def léeg-léeg saa rek e, taalibeem boobu ñu wax ko sa béy léeg mu jox ko béy ne ko demal jox ko imaam Ousmane Diop ne ko ndawalam la wala ay ganaar ndax daayira bi di ma waaye bu naafi fii ma daay saafi Serigne Saliou moo ko tudde woon jàngkat yi muy tagkat yonent bi ànd naa fa ak Alaaji Ñang ci Serigne Koso ci tur daayira bi la woon ban demee keroog rëy gu mu rëy ci Serigne Koso booloo gi booloo àndandoo nekk benn moo waral keroog mbégte moom mu bég ba wax ma ne ma yett yi lu ngeen ci bëgg wax leen moo indi ko ba yàgg mu ne bàyyi leen ma indi yett yëpp dolli ca génne saagam génn yére Sëriñ Tuubaa Sëriñ Koso nekkoon nit ku mat amoon loolu fulla jaxasoo woon ak kilifay réew mi yépp ñëpp it daan ko fekk ca Sarsara diggam ak président Senghor ñëpp xam nañ ko Abdou Diouf ñëw feddali loolu ci diggam ak moom sëriñ Koso nekkoon ku fonk doomu aadama te daa leen dimbali ndimbal loo xamante ni amu ci woon xàjj ak seen. sëriñ Koso ses relations ak Habib Thiam ancien premier ministre avec Abdou Diouf Senghor relation yooyu yépp taalibe sëriñ Touba yi taalibe borom Darou Mouti ñoom la daan lijjanti ndax. Euh, après indépendance ku mësul ku jàngul woon tubaab doo liggéey. da ko daan sagal ci jitaay yi ñu ngi nettali bis bu nga xam ni euh, kilifay nguur gi yëpp dañoo toog Senghor jekki-jekki woolu suñ koso ci biir mbooloo mu jóg fekk ko fi mu toog mu déey ko te fekk déeyu ko dara waaye daf ko wax ne ko dama laa bëgg xamal damaa bëgg xamal mbooloo mi ni sama nit nga damaa bëgg xamal mbooloo mi ni ko sama nit nga te yemul foofu lépp lu mu soxla rek danañu xam ne ak nitam la. xanaa digganteem ak président Abdou Diouf ku ne xam na ko digganteem ak premier ministre Habib Thiam kon ne xam na ko membre gouvernement bi nii ñuy def léegi di leen jox xarit tabaski ci sëñ ko sa astu loola jëkkee. doomu sénégalais yi nga xamante ni am nañu bulletin de salaire te sëñ ko sa asuloo tax kenn xamul ñu mu toll personnalité bi ko yàlla joxoon nga xamante ni Senghor mi mu daan jamonoon mu doonoon le président de la ñëw na fii en 73 sëñ ko sa nii sëñ moo daaw balla mooy sama wayjur Senghor mooy sama xarit bari na ci waa kër sëñ moo doog daaru musti ak yoonu murit étudiant bu am bourse moo dem ca Senghor Senghor defal la ko gouvernement bu mu fi nekkaloon ba ñu fi ab Abdou Diouf wuutoo Senghor daf daan lijjanti ngir taalibe yi soo demee au port la mu fa dugal ci ay nit ñu doon fa liggéey kenn xamul nu mu toll soo demee soti ba ñi may déglu mën na waa tudd ay tur waaye sociétés yi dul jeex damay bañ a ba ci RTS am na ñu fa am salaire ba retraité sëñ ko sax moo leen fa dugal. soo nga ci doon wax ba nit tukki du jeex moo ma dugal RTS. moom ma njëkk a yóbbu mag ki ma ko tuddee magum jëmm la kon moom ni nga xamante ni bii borom daarul moxti daawul dunde ab état mais daf daan dundal ab état état ñoo daan ñëw di wut ci moom aw jiwu état ñoo daan ñëw di sàkku si ci moom pepp moo xamante ni gouverneur daf ko di joxeel pepp mi ñu dundale ko les prisonniers politiques les prisonniers de guerre ndax amatuñu lu ñu lekk sëriñ ko sa foofee la nekkoon liñ ci mën a xam ci ay cas mënuñu ko waññi fii li ñu xam ci ay nit yoo xam ne moo tax ñu dugg ci place ba ñu toog di liggéey kenn mënu ko waññi. benn bés maa ngi fàttaliku man ak Omar Sarr nekkoon sous-préfet ak sëñ Bass Abdou mi nga xam ne moo nekkoon porte-parole boobu sëñ Abdou boobu mu ngi dund ñun ñett ñëpp mu woo ñu mu reer. invité moom sëñ Bass sëñ sëñ sëñ Koso ngi toog nii sëñ Bass Abdou Khoudous toog nii ak Omar Sarr toog nee ñu ci kanam ñoom ñett. man ma taxaw seen gannaaw mu photo yi ba pare mu ne xam nga lu sama def foto bi mu ne mu ne preuve laa bëgg dama bëgg nag léegi yéen ñetti yéen ñetti ñii ngeen booloo def nii sëñ Abdou mii am bi bu kiyam bi euh, xalifam gi bu mu am benn benn benn jafe-jafe su seen ko defee su ngeen gestoo di ngeen ma gis waaye su fekkee ne nekkalu leen fi sëriñ bi man su ngeen gestoo man di ngeen ma gis du ma leen far ci la léegi moom da ngeen mën a bokk yow yaa yor administration bi ki yor ma yor sécurité bi baatu sëriñ bi yéen ñett nangeen ngeen ànd su ngeen àndee su ngeen gestoo gis ma. sëñ Koso dafa bari woon njariñ sëñ Koso dafa amoon ay relation sëñ Koso dafa woyofoon mën a composé ak ku nekk ba tax na man xam naa ñoo xamante ni bii service moo leen doon indi Darou Mouhty commencé par. Seck Ndambaaw mi nga xamante ni mooy way waajuru réalisateur euh, documentaire bi Seck Ndambaaw daf daan ànd ak waa RTS ci jamono sëñ moo daaw balla di ñëw di jël si màggalug Daarul Muuti booba daaw ñu tant barab bi néeg borom Daarul Muuti bi di euh, euh, maqaama booba fa la ñu daan defee cérémonie ba korité ak tabaski itam moo daan ñëw di jël si Euh, julli yi ci la amee ay relation ak Serigne Kosso Astou Lo ba jébbalu mm, doon taalibe Serigne Kosso Astou Lo loolu yaatug Serigne koso ak euh, ak tabeem mën naa joxe yeneen exemple waaye nag Moustapha Seck du fait que mooy def euh, documentaire bi mën na maa jël exemple ci way juram ndax sekk naa mbaaw ma na fee nekk ba jóge fi te du jébbalu Daaru Muxti waaye xamante na ak sëñ ko so li ñuy wax ni gis bëgg miin bañ jikko jaa suul taar ba waaye nag gis bañ miin bëgg moom jikko rek mooy tax ñu def ko ci nit bamba kone kone bayil maam cerno jiite góor ña baari saxaay borom daarul muxti dafa digaloon sëñ moo tax bala ngir mu dem rëbbali Serigne Touba rëbb moomee sëñ Amidou Diop mu ngi koy nettali nee na ba ñu rëbbee ba ñëw bi borom daaru yebalee sëñ Modou Balla ñu yóbbu rëbb mu njaareem nee na keroog. kër gu am cin rek am nga benn wala ñaari naat ca la ko sëriñ bi doon eh, jàngale ni ñuy rëbbee maanaam boo boo boo fetalee boo jamee na nga xam ni eh, ci kattanu kii kattanu yàlla tax nga jam maanaam bul bul damu daal bul jam aw rab di damu ak ya ca xew noonee sëñ ma daw balla defaloon eh, ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba moom sëriñ ko sa defal na ko way juram rëbb mu rëy daaru musti dañoo yàgg ci fetal ak njàmbaar mu dem rëbbi ni du ma wàññiku te rëyuma kooba ba ñu demee ba sonn bay wàññiku la gis kooba mu indil ko sëñ mu raw bal la daana rëbbal baayam ci at mu nekk ca digg mandig ma du naan du lekk yët na ko rab wu ne fa pencum daaru moo njëkk a indi kooba moom fa daaru su weeru koor masaana ñëw fa daaru mu yët ko ay ndogu yu jaaxal daaru li waral ndogu yii ak lu tax lu jëm ci ndogu yii ak ndogu yi ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu. guddik ñaar fukki fan juróom-ñaar ci weeru koor ci atum 1967 la ko way juram wa di sëriñam togguloo ab reeru ndogu ndeke boobu mi ngi koy tànnal ab bés. ba ndigal la jibee donte guddi na lool mu fëx ànd ak baay Abdu Joobum yolom ak baay Baara keroog ab gàtt la lewatal def ko reer yot ko woy juróom wa ba mu egsee la sëriñ mu mu Muhammad Awa la bég lool digal ko mu fonk bis bi xamal ko ni ko mooy sa bés benn bis la ko sëñ Modou Awa Balla woo ci boobu guddi na lool sax ne sëriñ bi daa bëgg nga toggal ma ay ndogu ci taarix bi ñu ko xoolee loolu mi ngi nekkoon 1967 bàyyi ba guddi sëñ bi woo ne ko déggal ma ay ndogu ku ne xam ne defukaay jafe na yu baree bari yombutoon ci Daaru Muxti 67 sëñ bi jóg ànd ak ay taalibe ñu man tax ku mel ni sëñ Baara Ba ku mel ni sëñ ab Abdou Diop ñoo ñëpp yàlla jiitu ñu nañ tey yàlla na yàlla dool leer ci bar sàq ñu ànd taxawu ko taxawu ko ba mu guddi lool wante mu pare itam nag sëñ bi bég ca lool ba sëñ bëggee itam ba mu ci xéewloo jox taalibe ñuy xéewlu mooy leen bis bii de dama bëgg ngeen fonk ndax sëriñ ko sa bis bii mooy sa bis ndog yi nga xam mu ngi koy def tey benn gàtt la ko defee woon Daaru Musi la ko tàmbalee waaye bi muy ko ñaareel fii la ko defee Sarsara bañ ko toggee ba pare baara baa ko doon togg ak yolam Diop ba mu pare benn ah, quatre cent trois boo xam ne moom la jënd woon Louga ñu koy wax jaay ko ko moom la ñu yóbbu Daaru man ak ak Majaar ak sëñ ak baara ba ak yolam noonu la yóbbu Daaru ñu yóbbu ko sëñ bi ne ko ndax moos ndax moos kosa dara du yomb la mu ne ko mu ne ak saxaar sax dana eh, jomb ndax lu lu baax lu ne de am nga ko waaye dara mun tey jàll tey jaaru ci yow lanti noor nga. at mu nekk bu bés ba digisee muy ñaar fan ak juróom-ñaar ci koor gi sëñ bi toog ay ndogu yët ko sëñ Modou Abal di ko def di ko def ba sëñ Modou Abal jóge fi 1982 mu ko ne di ko yënt sëñ Moustapha Absa ba 1998 sëriñ ko sa jóge fi wante teewul tam nag loolu ndono li dafa des. ndax sëñ Kara mi nga xam ne tey mooy toogu mooy toogu tànk yi sëriñ Koso di baatam di léppam ne ci mbir moom at mu nekk mu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar dikkee mu togg ndox yi indi ko jox ko sëriñ Moustapha Absa yàlla nag fi yàlla yàggal lool ci wér amdi wa shukri liman kulli bi jaara لاردا دون شخط عند سرسارا لو سنائي وردواني بلا أرقتي مسقعد لي من بني ديمان أنشارا لله كلي لدى بار مظلمة من أرض الله وفيها جم منشارا سن ببنين إن الذين إلى سرسارة إلى سرسارة إلى سرسارة قد خسدوا سيارتي فارخ دارين أو زارا إن الذين إلى سرسارة قد خسدوا سيارتي فارخ دارين أو زارا lu mat a bàyyi xel la la way juróom ni woon bis bii mooy sa bis ndeke moo war a doon bisug ñaanam ñaar fukki fan ci weeru koor ci atum 1998 la làqu yu bés ba dajeeg sarax sa réew mi ñàkk kenn gu rëy jàmbaar ju am fulla te sàmm daawul maslaa diine mbaag taalibe kàdduy soññam yaa ngay kàndan ba tey ci suñu xel yi yàlla na ñu ko suñu boroom fayal te yàggal fi lool xalifam bi sëriñ Mouhamadou Kara Koso yokk na yaatal na yàkkali na benn gàtt la baayam doore woon tey jii nag ya ëpp na juróom fukk gàtt ya ganaar ya ak ya sa des mëneesu koo lim yàll na yàlla guddalaw fanam te fayal ñu sëriñ ko sa waaye nag li ma yàlla may danaa ko gërëm ab jaam laa boo xam ne may na ma te li ma may danaa ko gërëm damaa wax man ne ci rajo bi laa koy wax àdduna beeg ak bitim réew ak biir réew mi di ko dégg maa wax ne man Kosso Mbacké man maa wax ne Kosso man Kosso Mbacké ku ma àndal danaa la dimbali ci àdduna danaa la dimbali dimbali yow man man maa ko wax